man tey ci suba sax bi ma déggee xibaar yi damaa jaaxal lool daara ji man kër Sëñ a laa yaroo am fa fukki at ak benn Sëñ Saaliwu laaj ma ko nee ko damaa bëgg mu jàngaleel ma mu andi ma ci kër gi kër kër Sëñ Saaliwu la woon jox ma juróomi téeméer dongo yoo xam ne dañ naan daw ak a xiibun nee ma yóbbul ma ci kër googee ñu continuer foofa de jàngate buñ jënd kër ga mu boole ñoog seex bi ci cuun mu ñuy toggal lamat juróomi téeméer dongo nu continuer ca dongo yi noo deen jàngal bis bi may ñëw fii ci daara ji keroog sëñ Sall dafa def déclaration ci rajo jumaa ji ne képp kuy jàngat di boole naa la ak sëñ Cissé loolee nag sëñ ku moo war mbooloo mu bëri nii daara ñetti daara la ñenn ñi dañuy jàng xam-xam di wàcc ci kaw jumaa ji lay nekk war na ñëpp ñett téeméer nit ñenn ñi dañuy jàng alxuraan di wàcc di ñibbi ci kër yi mbooloo mi bëri na lool ñenn ñi dañoo féete ci biir internat bi biir internat bi boo ñëwee dañ la tàndaloo ñaari yëf bu la neexee nga ne ci biti boo neexee nga ne ci biir ñu newoon ci biir internat nag ci guddi fekk na maanaam boobu doo sëñ daara ci bëri julli ji nañ booy yéeg ci kaw dajji fenêtre yi biñ dajji fenêtre yi ñu xam ne buñ leen jéem a wax dara ñu gaañu ñu wax sëñ daara neen kon ubbi leen gune ñoom ñëpp dem li ma dégg nag ñu naan am nañu ci faatu kenn faatuwu ci loolu moom du dëgg ku ngeen dégg te mu ne am ku ci faatu nee ko kan la ak fan la loolu moom amut la ca toppaatit dégg na am ñu naan jox la ñu lekk loolu xel nanguwu ko nit mën a tabax ñaari daar yoo ne boo ko doon xool war na mat un milliard nga wëlbati da faratu cox dund soo ñëwoon ci biir magasin bi da fekk ceeb fekk fi dugub fekk fi maanaam ñebe lépp na ci biir daara ji loolu moom xel nanguwu ko la euh, fi mu ne jigéen ñi nga xam ne ñooy toggal dongo dañ leen di fay am na ñoo xam ne seen ñu ngi ci biir daara ji ba tey ku ne kuy miim loola di ko jeexi jaax na nga ñëw ci biir daara ji laajte xool ba xam ñun nag bu déggee ab xibaar ba laa cee wax dara daa war a xam xaar ba am ci lu leer tooñ nañu nag ba fa tooñeem lool xam nga daaray jàmbur nga jékki-jékki ñëw ne juróom-ñaari nit faatu nañ fa te dara amu ca du dëgg loolu ay tooñ la na gaa yi bàyyi tooñ tooñ baaxul wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ah. waaw am na ci koo xam ne blessé na nag waaye kenn laa ci xam man waaw. faatu gi moom kenn defu ko ci kooku it mu ngi hôpital benn xure xure ku la waa ka sëñ Baara Doli. na jaajëfale coow lu rëy a rëy moo amoon ci Madiana benn daara boo xamante ne daara ji Serigne Saliou moo ko sañ ci waaye nag euh, dafa am ay xibaar yu ci jóg man bi mu amee boobu bi ñu ci ëllëg sa la woo nañ ma téléphone amal ma ne ma am na ay taalibe yoo xamante ne ñu ngi rëccee ci daara ñu ngi jugee ay troisième étage bi tëb di wadd mhm. am na sax ku ne ma ci am nañu ci ñàkk seen bakkan mais information yi nanguma koon joxe parce que il fallait ma am un reporter sur place pour mën a vérifier waaye bi ñu defee ay recoupement vérifier dem ba ci daara bi li ñu gis mooy kenn ñàkk ci bakkanam te doon nañu wax ne xale yi ay conditions yu délétères lañ doon dundee dañ leen di jox ay cox yooyu yooyu tamit vraiment suñ yàlla rek moo tax ñuy wax vérifier nañ ko mais loolu nekkul loo xamante ne confirmé ne ko am na parce que daara bi euh, kër Sëriñ Saaliw la woon Sëriñ Saaliw moo ko jël Euh, daal di koy euh, def ko daara ñu jox ko seen Mor Cissé xam nga Touba amul usine amul jàng école arab école française mm-hmm. école arabe rek la am te am na ay xale yoo xam ne Abdoulaye dañuy am dañu am sax fukki at ak juróom-ñett dañoo të ñenn ñi dañuy nekk nema yàlla baal bi quinze ñenn ñi nekk ci sare bi di të seen i njaboot jeex lu nekk ñooñu nag la ñu jël indiliwoon leen ci daara bi dafa am internat yéegal leen ci kaw am na ñoo xamante ne dañuy ñibbi wàcc jàng bi wàcc bi mais am na ñoo xamante ne comme ñu tëwoon ni fu ne lañu ñibbitee comme ay li xaw a sookeeg li xaw a kañoon rek ñu jël leen ak leen ci kaw waaye comme tabaski bi seen i mbokk ñi sëriñ si dañoo demoon ñenn ñi nga xam ne sa mag daara dañoo demoon tabaski bi ñoom ñu daj rocc bunt bi mag bi dóor ko ci palanteer bi euh, palanteer ba dajeeku ñu commencé bi mel ni ñuy wàcc ay parents bi cëppeelu waaye ñi nga xam ne ñoo fa desoon te yoroon mag bi mag nekk seen mag daara am nañ intelligence dañoo tijji bunt bi pour bàyyi xale yi lu mat deux juróomi téeméeri gone ñoo fa nekkoon ñu génn affaire mel nag sabar gu tax xam nga tucc xoo bi ñëpp naan laa ñuy dee nañ étude fekk kenn deew ci benn xale moo ci am ay gaañu gaañu yóbbu nañ ko hôpital mat la bu posé ni ba yàlla def na euh, ay euh, gaañu gaañu yi ci yul noonu mu ngi tane bu baax a baax naka noonu nag police woo na leen ñoom euh, parce que bi ñu wooyee police police ñëw na fa def constat bi leen aussi woo nañ sapeur pour mu ñëw waaye ki nga xam ne mooy sëñ Modou Cissé nga xam ne sëñ Saliou moo ko yar jàngal ko tarbiyo ko jox ko daara ji moom sax affaire bi da koo yi parce que nee na munoo jël daara def ci un milliard xam nga te kenn jàpp ci ba pare ñuy wax naan ay xale yi ñu ngi lekk coxaf si yooyu vraiment loolu dafa ñaaw ba pare na am na ñu si génn àdduna ñoom nag dafa am presse duñ naqari duñ naqarlu xamuma nag ban presse la mais nee nañu ndaje mi ñu doon amal ak tax xibaar ne am na presse bu wax ne am na juróom-ñaar ñu ci ñàkk seen bakkante loolu dara amu ci. Mhm. man nag information boobu dégguma ko mais ñoom ci seen gémmiñ laa ko déggee waaye man bi ma nit wooyee li ma mën a confirmer mooy am na ku ma woo wax ma ne ma am na ci ñàkk bakkanam waaye bi ma defee recoupement xam naa ne loolu amul moo tax balancé wu ma information bi ñoom affaire ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci histoire mhm. donc daal loolu police déglu na leen dem nañ fa waxtaan ak ñoom ñu bàyyi la ñuy bi xam naa peut-être ñu ngi wéyal enquête bi dégluwaat waaye nañ jàpp ne ay xale yu tëla yóbbal leen ci internat boobu ngir jubbanti leen sol leen alxuraan te loolu nag moom on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs li tubaab bi wax donc loolu moom daara moom lépp Tuubaa lépp fa am xale yi moom dañu yàgg di tëb di daw waaye dañu leen jël mais du jëng bu ñu ko gis du loo xam ne xanaa ay xale yu doon tëb la rek donc loolu mooy information bi nga xamante ne jógee ko na ci ñi nga xam ne kilifa yi ñank daal ci Madiyana ak Layba. maa ngi en ngi lay jaajëfal. Euh, Mamadou Matar Sarr ci yooyu le leeral euh, yaatal nga ko faram-fàcce nga ko daañu ci dikkat incha allah na mu gën a yaatoo euh, gàppu ab dëkk la goo xamante ne ma nga féete ca diwaanu Diourbel coowal suuf jibboon fa fan yi ñu weesu am ñu ca jot a teg loxo kenn sax jot nañ ko caa teg loxo mbir moom le naka la demee ci dëkk googule Matar. waaw dafa am benn collectif bu judd ngir xeex wala aar suufu gàppu Sàppu benn dëkk la bu nekkee ci commune Patta ci département bu Diourbel parce que nee nañ kilifa yu nekkee ci gox bi dañuy caxat caxatee seen i suuf loolu nag yàgg nañ ko wax xeex ne dañu def ay lotissement yu jaar yoon dafa indi ay problème ainsi de léegi nag fan yee dañoo ñëw ñu def euh, benn euh, ki nga xam moo di fay président bi moom dafa doon tabax këram nee nañu nag ñoom bi ñuy tabax kër gi autorité bi moo ko wax le préfet le sous préfet moo ne ko mun nga faa tabax day lay jox ko autorisation na ko waa am nga autorisation tabax ko mhm. léeg bi ñu commencé di tabax nag ba mu yàgg comme moo jiitoon collectif di xeex ak autorité yi di xeex ak sous-préfet day ak ñoom ñëpp ci ne nit ñi di laatudee suuf si nee na gars yi daal koy jël jàpp ko euh, dugal ko ci mbaarum jaga fann placé ko mandat de dépôt mhm. mais waa askan bi nag ñoo takk seen i morso yu xonk amal ndaje bu yaa def genre mu sitiñ mhm. euh, amal mobilisation ne dañoo bëgg ñu bàyyi ko ci ñu mu gën a gaawee parce que kooku li ñu koy toppee ñoom ñoo ko wax ne ko autorisation di demal nga tabax di këram foofu noonu ba pare ñoom li leen naqari mooy waa ji li ñuy xeex jiite collectif bi di xeex ay lotissement yoo xamante ne jaar yoon ak suuf si ñuy jaxat jaxatee looloo tax ñu singili ko bëgg ko indil ay problème waaye nee nañ bu fekkente ne bàyyiñ ko ci wax yii di ñëw ñoom parce que nit ñi gën a amal yeneen doxu ñaxtu te ñu ngi interpeller autorités yi président de ak ñëpp parce que du ñu ñoom autorité yi ngir xeex wala ay affaire politique politicien seen président bi ñu denc ko ci prison bu Diourbel ñoom ñu kon continuer di doxi seen i soxla te deful dara bi ñu koy toppee gis nañ yàgg nañu ko de constitution mën nañ la wax nga arrêté par rapport ci loolu am na leneen lu ci lax su ñoom ñax dem nañ ba ne tabax la te duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg Abdoulaye. Matar dañu àddu ci wàllu wér-gu-yaram bu ñeel euh, ñetteelu vague coronavirus mi tàmbalee law ci réew mi bu dee ca diwaanu Diourbel fan la feebar bi toll. waaw Abdoulaye euh, fan yi de moom euh, feebar bi nee nañu ñoom autorité euh, sanitaire yi. Hmm. nee nañu gën na di jolliwaat parce que benn bés bu ne des fois dañuy am ay fanweeri cas benn fa des fois ñoom fanweeri cas ak juróom-benn kon loolu daal moom la ñu fi maanaam bu dee le 20 moom juróom-ñeenti cas la ñu amoon bu dee le 21 ñu ngi amoon fanweeri cas ak juróom-benn ci benn fan bi. Hmm. ni ki démb nag le cinq am nañ fanweeri cas. ak euh, ñett mm-hmm. waaw am te Ablaye fanweeri cas ak ñett yëpp nee ñu ay cas communautaire la mm-hmm. benn fan lañ ko am amuñ benn cas contact amuñ benn cas importé jamono yii nii Ablaye euh, nombre hospitalisé ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpital yi ci Touba Matlaboul Fawzeyni mu ngi toll ci fukk ak juróom-ñeent ci centre boobu nombre de cas grave yi nee nañ ñetti cas grave lañu am démb nag yàlla def na amul kenn ku ñàkk bakkanam waaye am na ñaar fukki nit ak juróom yoo xamante ne yàlla def na wër nañu maanaam bi mbas mi tàmbalee ak léegi diggante district sanitaire bu Touba enregistré na junni cas ak juróom-ñaar ak juróom-ñett donc ma baamtuwaat ko junni ak juróom-ñaar ak juróom-ñett ñoo am mbas mi ci district sanitaire ci Touba ak li ko wër. Mhm. Euh, gis nañu ne junni bi ak ñeenti téeméer ak juróom-ñeent yàlla def na faj nañ leen ba ci wër téeméer ak fukk. ak juróom-ñeent ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan yàlla yàlla xare leen àjjana woon si seen taw teer leen ak malaakam yërmande mm-hmm. loolu daal moom mooy situation bi nga xamante ne am nañ ko laay ci district sanitaire bu Touba bi mbas mi tàmbalee ak léegi kon jàppal ne jur téeméer nit ak ak juróom-ñeent rek ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan Abdoulaye jërëjëf donc nag euh, c'est l'occasion ñu ñaax askan yi ñuy sol seen i masque comme ni ñu ko baaxoo rek di euh, di parce que ñu di waajal ay xeexoo yu mag mm-hmm. Abdoulaye umple woone nekk nii ndaje màggal moom daanaka tàmbali na. waaw ko euh, nawet gi tàmbale na jombul foofee ca Danxase nag euh, fi nga xamante ne mooy kër Ngalgu ak euh, Ndindi Ndullo ba ca Ngooc ak Patar ba ca itamit Misira ak. Njuumaan. jaajëf Ablaye nawet bi tàmbali waaye balaa loolu nga may ma. Hmm. ñu jaale xalifa Serigne Massamba Mbacke di sëñ Moustapha Mbacke nga xam ne moom moo njëkk a ñaar moo génn àdduna ñu denc ko na ko yàlla xare àjjana pour que démb aussi euh, xalifa euh, sëñ Abdoulahi Mbacke Mbacke xewar xalifa Mamor Diarra di sëñ Abdoulahi Mbacke yàllaay buur moom it euh, dafa mujjee wàcc liggéey mu nekkoon góor yàlla bu mag boo xamante ne bu xamoon na ko ci liggéeyu Serigne Touba ak jaamu loo ko waxoon rek danaan la yàllaay buur moo taxoon gëm yàlla ragal yàlla moo taxoon ñu naan ko sëñ Abdoulahi Mbacke yàllaay buur mu nekkoon kilifa goo xamante ne Mbàkke gépp moom moo nekkoon kilifa gi commune bi baax nga Mbàkke foofu la Serigne Touba Xaadimu Rasuul ku tedd ki gane foofu moom la nekkoon xalifa bi doon fa liggéey bu am solo gis nga stade bi nga xamante ne dañoo waxoon dafa jege armée dox na ci wax na ci ànd ak ci autorité municipale yi commune bi ak xalifa général bi Mountakha Bassirou Mbacké bañ mm-hmm. jëlee fa bi nga xamante ne dafa am ay armée yoo xam ne dafa dend ak moom rafetul léegi tur Serigne Touba lañ koy def mu mel ni daal liggéey yu bëree bëri jumaay Mbàkke Xewar ji avancé na à grand pas ba cent quatre-vingt pour cent lépp daanaka yemb na mhm. ci démb rek ci parloom xalifa bi joxoon na ko lu tolloog cent millions pour ñu wëyal liggéey bi ñu nekk loo xamante ne ñu koy jaale bu baax a baax a baax waaye am na benn xibaar bu jub démb ba léegi nag ñuy wax ne ñu am na ñu xalifa ji ñu ngi koy xëccoo ci ko war a remplacer bi ñun ñaari tur loolu nag ñun Abdoulaye duñ ci àddu mhm. duñ ci wax dañuy préféré waaye njaboot gi kilifa hmm. comme ni ñu ko defoon ci xalif général bañ amal déclaration officielle ne diw mooy xalif hmm. su ko defee ñu joxe parce que fii dañoo nekk ci dëkku diine boo xamante ne yenn détails yi ak yenn kii vraiment duñ ci bëgg a dugg wala fajir yi dafa bëgg information yi ñuy joxe rek mu nekk lu leer suñ hmm. demee ba lim ne kii mooy wala ñu wax tànn ko ñoom ñu waxtaan seen biir ànd ci xalif général bi murid wax ne diw mooy xalif bi bu boobaa dinañ ci ànd wax waaye am na ñu bëri ñuy wax naan kii la ñu naan kii la ñuy indi ay xiiroo loolu vraiment dañu bëgg rek ñun ñu xaar ba kilifa yi gisee seen biir wax kan mooy euh, wuutu Serigne euh, Abdoulahi Mbacke yàllaay buur su ko joxee su ko defee jox ko taalibe information boobu Abdoulahi. mën nga ko euh, daan ci nawet bi moom comme ni nga ko waxee. Mhm. moom vraiment yàlla yàlla def rek taw yi bu continuer mhm. su ko defee taalibe yi mën a ji mën a kon ji ba pare sax xam naa mën a. ni ñu ko defee faro bayaat ak lépp ba mbir mi ñu am nawet bu ci ay su ko defee ñu mën a dundal njaboot bi dundal daara yi parce que producteurs yi mag daara yi lañuy gën a bëgg di dundal daara internat yi mhm. ñuy mbay ci daara yi lay gën a jëm Abdoulaye parce que umpale woon ne daara état mhm. jàppalewu ko bi muy def ci ci ci ci ci ci njàngum français bi bu ko doon def ci daara dinañ gën gis suñu bopp parce que Touba boo xoolee Abdoulaye junni daara ñoo fi nekk maanaam te nee nañ secteur bi nga xam ne mooy njàng ak njàngale quarante pour cent ci def te quarante pour cent yooyu boo xoolee école française bi rek ñoo ciy bénéficié wu. école daara lan la ci bénéficié wu te bu ci daara bénéficié wu kon jàppal ne Touba bénéficié wu ci. donc kon nañu gën a xoolaat séddale gi ñu bañ a weng te des citoyens à part entière ñoo fi nekk di bay liggéey jaamu yàlla di fay seen i tax lépp luy état di joxe dañ dul wax rek waaye war nañ cee am. donc loolu daal mooy li nga xamante ne war nañu ko leer na ci leeru jamono ñu ngi lay jaajëfal Mamadou taar saar ma bàyyi la ak euh, Bijou daal. ñu ngi lay jaajëfal bu baax juróom Adama Ndiaye yaa <laughs> ko mbirum boobu. Eh, waaw amoon na solo eh, boobu réew mi neex na. Abdoulaye. <laughs> boobu Adama Ndiaye mi toog ci machine bi xamuñoon fu mu féete nee naa ko Abdoulaye Abdoulaye Abdi Adama Ndiaye yaa ngi waral suñu waa ji mu ne ma watuma kenn ma ne kon xam naa ba ñuy wat ji doogóore mu ne ma non watuma kenn gën <laughs> a. doy na waar. moo tax ndel bi set naa jaajëf <laughs> euh, la woon comme saa su rek ni ñi àndandoo ak yow ci douceur matinale. jërëjëf kontaan nañu bu baax ñu leen di félicité encore une fois di leen ñaanal yàlla leen gën a tax gën a taxaw gën leen a dëgëral liggéey bi gën a mucc ayib bi. amiin uh, Matar encore une fois Ablaye nit ku baax la. ndaanaan laay ndaanaan. goog laa ñu ngi lay sant di la gërëm dégg nga ngi ko en tout cas ñu ni ñu lay sant di la eh, gërëm Écoute Matar c'est nous dans nous hein donc euh, voilà c'est l'équipe qui gagne le groupe Walfadjri ñu nag suñuy naatangoo euh, rawatina yow mi nekk foofu ci diwaanu Touba Mbacké région de Diourbel daanaka ak li ko wër ñu lay sant di la gërëm incha allah rabbi di ñaan rek kenn ak jàmm ak salaam et à très bientôt incha allah ñu ngi nuyu sa waa diwaan yëpp di leen ziar. jërëjëf ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ziar euh, général des Mourides ak Serigne Sidi Abdou Abdou nga xam ne moom mooy bàyyi rajo bi.